Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf baatub fay naar bi xoromam démb la ñu xam dëgg-dëgg lu muy tekki l'observateur nañu coupe du monde bi ñu war a ca Qatar ku ca dëgg Sénégal ne ko mas qualifié nañu ca démb la ñu Égypte ca jam ñaajo Sénégal ak Égypte gi démb ci stade maître Abdoulaye Wade na mu demee yëpp journal bi di l'observateur xëy na di ñu ko nittiliwaat boole kook bind ci xëtamu njëkk mieux vaut Qatar que jamais xaar bi yàggoon na yëf yu metti waaye coqam a xam ne ñoo ngi ñëw journal Le Mandat ne ñu ila Qatar la si ne kay ne ko ahlan bikum fi Qatar mu di dal leen ak jàmm ca Qatar libération feelu leen ba di ñu wax ne Qatar googe ku ñu fa dëgg nee ñu mas champion d'Afrique mu di gayndee Sénégal yi ci coupe du monde bii di ñëw entraîneur équipe nationale bu Sénégal di Aliou di ñu wax ci libération ne bu ñu yeggee ca Qatar ak jàmm dinañu fa def lu raw li ñu def li ñu def ñi ko def di gayndee Sénégal yi yéene bi bii di libération xëy na ñenn ci ñoom ba di ñu wax ne bi di Edouard Mendy assuré na Sadio Mané ñëw rassuré bu nuppi yeewi yi ne woon ñoo togg ba meloon ni ñu toog cib nen ndaxuk jaaxle Le Quotidien ñu démb gaynde yi tiituñu benn yoon Edouard Mendy ma woon ca kaayam mat na fa sëkk la mu doon Sadio mi dugal penalty bi yóbbu Sénégal ca Qatar matum tudd matum tabaski tey la nangu day yombali tax entraîneur bu Égypte di Carlos Queiroz wax démb ginnaaw max bi ne boo boolee final ba woon ca Cameroun max ale ba woon ca Caire ak max bi woon démb ca Diamniadio Aliou Cissé moomu ci man moom Qatar gi ñuy amalee coupe du monde bi Sud Quotidien nee nañu gaynde Sénégal yi invité nañ fa seen bopp sursoi nañu lii mënut a nekk gaynde xamul loolu impossible n'est pas gaynde entraîneur équipe nationale bu Égypte di Carlos Queiroz mi doon wax ak di bàkku fu nekk ne bokk na ci fukki entraîneur yi gën a taqe ci àdduna bi sursoi nee nañu démb ne na Aliou Cissé moo ko mën président Macky Sall yéenekaay bi nañu bi nit ñi génnee doon zibile démb ak feetu qualification gaynde da ko fekk di reer waaye ba la dagg génn sa mbëxloo ci mbambax mi Matar Ba ministre des sports ci journal L'Info ma nga fay xam ne ne bu Sénégal nag gësam ko dafa ñor tab liggéey la bu ñu yàggee mu ne max démb bi xel xalaatul woon ñu koy perte record yéen kay nañu gaynde Sénégal yi defati nañu ko pharaon yi fa ñu leen jaarale woon ci final coupe d'Afrique ba woon ca Cameroun fa la ñu leen jaarale waa ñetti penalty la Sénégal dugal Égypte dugal benn léegi ko nañu li yóbbu Sénégal ca Qatar ci coupe du monde ba bu doon ak saxaar la Sadio Mané ko dawal naataangoom bii di Cheikhou Kouyaté ni bi bi ñu gàñee coupe d'Afrique ñëpp waxante dëgg ci suñu biir ne suñu gàñee coupe d'Afrique bi ba nuppi te jariñ dara vox ne ku naan moo taxit ni ngeen ko bëggee woon amee ngeen ko noonee ne ginnaaw bi ngeen wanee seen bopp ci Afrique léegi nag yéen a ngi àdduna bi Sadio Mané nañu ci Vox Populi dëgg la def nañu lu ñu mën démb waaye supporters yi ñoo def différence bi ci max bi journal Vox Populi ne ko ak laser yi laser yi égyptiens yi doon dóor gaynde Sénégal yi keroog ca Caire weex na leen xàtt démb ca jam ñaajo sénégalais yi wan nañu égyptiens yi ne ku leen ko timbax ñu rimbax la ko direct news yi moom jànge ci ne aw doon benn bokk benn jëm waay ngir lijjanti mel ni mbir loolee la ñu gis ci bi jeunesse sub Sénégal biit yéenekaay bi nee nañu koy jaajëfal leen ndax taxawaay bu rafet bi ñu wane démb waaye nag kenn du Sadio Mané Badio bi gonek Bambali gi desaletuñu dara stade yéene kaay nañu coupe du monde bi di ñëw Sadio mooy dem ca Qatar Salah toog ca kër ga